ramadana ngi baytul atfal ramadana ngi baytul atfal jàkkay di fees mbedd di feex tafsir qur'an ci biir day fees baytul atfal andi pastif ramadana ngi baytul atfal ramadana

qui sont musulmans. Moi, j'aime Khadija, la femme du prophète. Moi, j'aime Aïcha, la femme du prophète. Moi, j'aime Amina, la mère du prophète. Tatkay Goli, Nemza. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. na ngeen def. ñu ngi fi. ana Oustaz. Oustaz mi ngi si biir. ok jërëjëf. Tatkay Goli, Nemza. Nous désirons au nom de filles qui sont musulmanes. Moi, j'aime Hadija. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sant yàlla bu baax. alhamdulilah alhamdulilah macha allah. da koy tey. ñu ngi fi yéen a ngi jàmm bu baax. ñu ngi am jàmm bisimilah. jërëjëf. da koy tey. bisimilah ñu ngi fi. alhamdulilah. ñu ngi fi ñu ngi si jàmm. alhamdulilah ana Cheikh. seex mi ngi fa. ba muy tane bu baax waaw alhamdulilah tane macha allah. oustaz. waaw ah tey de yow laa seet si woon. bisimilah macha allah damaa soxla woon pour uh-huh. ci wàllum asakal koor wala uh-huh. muddum koor ni ko ni ñi waxee. Uh-huh. am na Sénégal moom ku nekk ak ni nga koy waxee. waaw dama bëggoon xam uh, asakal koor. kañ nga ko war a mun a génnee ci weeru koor. waaye uh, di wax asakay mbirum koor rek la ko taxoon jug ak la nga xamee moom la xadis wax nii moo tax ñu ko joxe. mooy tuxratan li saim mooy kalaan woor. la nga xam ne moo ko rëccoon ci tiyaabay koor gi azaka gi mën koo fàtt jàppale ko ci léegi nag yi mburum koor kañ lañ koy génnee mooy lu jiitu julli korite ci ñaari fan wala ci benn fan ndax wér nañu ni Ibnu Omar daan na ko génne ci waxtu woowu waaye kon loolu lañ ciy dégg nii ki nga xam ne dafa bàyyi ba ci jour bi mu bàyyi bañ julli ba noppi mu doog a génne azakay mburum koor kooku na xam ne loolu mu génne du azakay mburum koor mais loolu saraxe lañ koy tuddee kon daal jour bi nga xamante ni moom lañ ko war a génne ak fi gën a baax ak fi gën ci ñu génne ko mooy lu jut ñu julli korité ci benn fan wala ci ñaari fan waxtu woo moo gën a baax ñu génne ko waaw loolu de leer na macha allah euh, dama bëggoon xam ne tamit kan lañ ko war a mën a génneel ndax sama doom am ñaari at sax hmm. war naa kaa mën a génneel ki nga xamante ni sama dëkkandoo la nekk ci man wala sama mbokk bu jógee dëkk ba ñëw nekk ci man waaw. waaw tamit euh, ki nga xamee ni moo war a génnee asakay mburum koor wala kan la koy génneel euh, ki nga xamee ni mooy borom kër gi ak ka nga xamee ni moo yor dundam ak képp koo xamee ni ci njabootam la bokk moom da koy génne asakay mburum koor kooku nag day laal soxnaam ak ay doomam ba ci ki am ñaari at ba ci ki am benn at. ba sax am na ñoo xamee ni dañoo wax ni ki nga xamee ni dafa wan lor mooy ab jigéen ji nga xamee ni dafa ëmb ci biiram ka nga xamee ni moo fa nekk bu fa amee juróom. Eh, ñeent fukki fan kooku tamit dañ koo koy génneel kon loolu mooy kii mais li gën a wér daal mooy yow ak sa njaboot ak képp koo xam ne yaayar dundam parce que sa ñaari waajur bu fekkente ni dañoo nekk alfaqirayni mooy ñaar ñu ñàkk yow da nga leen génne li mooy asakay mburum koor waaw ma bëggoon xam tamit euh, su ma ko génnewee kan laa ko mën a jox ndax mun naa ko jox sama dëkkandoo wala mun naa ko jox sama xarit wala sama mbokk bu ma jox wala ku ma neex rek laa ko war a mën a jox même bu fekkente ne sax sama dëkkandoo te am na neex na ma rek mun naa ko jox wala daa am ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko mérito ñoo ko lekk waaw asaka day bu fekkee war nañoo xam ñan lañ ko war a jox euh, dañuy dellu ci wax suñu borom di wax ni innama sadaqatu lil fuqaraa wa masakina wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibni sabil kon ñii ñooy ñi nga xamee ni ñoo gën a wér pour ñu génneel leen asakay mburum koor ak asaka ñooñ nag mooy ki ñàkk nga xamee ni amul ak ka nga xamee ni miskin la mënul boppam lu bari ak ña nga xamee ni ñooy liggéey ci mbir mi ak di dajale asaka yi ak yu demee noonu ñooñ mën nañ cee jox ak ña nga xamee ni dañoo amee bor boo xamee ni ci yoonu yàlla lañ doon saraxe ak demee noonu ba bor fekk leen fii ñooñ tamit mën lañ leen koy jox ak jaam ba nga xamee ni day liggéey ak di jox sangam pour goreel boppam kooku mën nañ koo jàppale jox ko ci asakay mburum koor ak ki nga xamee dafa nekk ci yoonu yàlla ak nga xamee ni dafa nekk di xeex ak di xaar ci yoon yàlla kon ñii ñooy nga xamee ni war nañ leen jox asakay mburum koor gi ak war nañ leen jox sarax nga xamee ni moom la ñuy génne waaye kon nit du xool ku ko neex wala koo xam ne am na alal moo xam dëkkandoom wala du dëkkandoom ku am alal nga xam ne yow sax moom moo la tene nga dem di ko jox asakaay mburum koor pour après am dooy séntu ci moom ak demee noonu moom baaxul moom teyit euh, kenn du ko def moom oustaz Mouhamed kontaan naa ndax ma ko woon ndax man de mm-hmm. dama daan wóor ba zuur koor gi ci suba gi mm-hmm. bu ñuy julli jee bu ñëw soo génne sama asaka kon man dama daan saraxe daaw ma joxe asaka <laughs> ah ah kontaan naa yàlla yàlla barkeel la waa kay jërëjëf baax na jërëjëf jërëjëf nga nuyu ma waa kër bu baax. waaw jërëjëf seetal ma Cheikh incha allah ma yuppi ma yuppi aaw yuppi ma yuppi ma yuppi aaw ce matin à sept heures et demie meew yuppi ma yuppi ma yuppi aaw yuppi ma yuppi ma yuppi aaw silence. Ramadan a baytul atfal ramadana ngi baytul atfal ramadana ngi baytul